Mouhamed Bassirou Diagne responsable politique notable Lébou de Dakar. defe naa du ñu dikkaat ci li waral jotaay wi léegi lan moo ci sa taxawaay ak lan nga bëgg a leeral. waaw d'abord dañuy layal suñu teewaay du doon lay sax waaye wax dëgg yàlla dañuy leeral suñu teewaay gët baada loolu loolu ñu ñu nuy képp ku ñuy seetaan nuyu Sénégal di ñaan yàlla réew mi yàlla def fi jàmm ni ñu koy faral di ñaanee Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm. ku ñu nar a indi leen lu dul jàmm yàlla na la yàlla jox loo jàpp ba fàtte réew mi parce que Sénégal ñu am suñu amee teraanga fi lañ bëgg teddee bu ñu deewee fi la ñuy suul kon ku bëgg taal réew mi dinañ taxaw jàkkaarloog yow ñaan yàlla réew mi bañ a tàkk ñu teewaay fii nag si teewaayu bokk la ci biiri bokkam euh, ndax li waral teewaay bi mooy Seydina Issa Laye Thiaw mii nga xamante ne moom la li daal ci kawam ba mu woote woote bii ñu ñëw wuy si ko suñu frère la Baye Seydi Thiaw ko jur Seydina ma Ndione ku xam ku ne xam sama diggante sama wéyjur Alaaji Basiru Jaañ ak kër Seydina Limaamu ku ne xam sama tànk ci kër Seydina Limaamu fii laa bokk fii laa yaroo fii laa lu toll nii su dalee ci sunu kilifa di doom ci Baye Seydi Thiaw jaadu na ñu ñëw bokk ak moom lii waaye itamit euh, li li li li xadis ba wax ne man ra amun karan moo ñu indi ne jullit boo amee lu la metti war nga koo mën a euh, faj ci sa loxo boo ko mënul nga faj ko ci sa xol boo ko mënul nga nga nga nga faj ko ci sa làmmiñ boo ko mënul sa xol ñun nag mënuñoo faj li am actuellement ci Ndakaaru ci collectivité lébu ci ci ci ci ci ci ci saax saaxee ak caaxaane ak woyofal ak ak yelleefu lébu ci réew mi ba tax na loolu moo waral ñu di ko mettilu ci suñu làmmiñ ñu ngi koy mettilu ci suñu làmmiñ te ñu ngi koy métti ci suñu biir xol loolu moo waral suñu teewaay ñu ñoo jàppale suñu frère. Mohamed ndax dañ ndax dañ leen a loolu lañ bëgg tooñ mënut weesu ma jàpp ne Cheikh Mansour Diouf mi nga xamante ne moom la ñu tudd di kilifa ci yoonu murit di Cheikh Kër sëriñ Touba di di di di ko am kilifa nag ñu xam kilifa am defe naa muy Serigne Fallou son bu man ànd naak moom màkk Serigne Fallou son bu di ku baax ku am yar ku bëgg diine ndax ba ñu ànd màkk sax ñun ñëpp ay ay kilifa diine rek a fa nekkoon mu nekkoon lu rafet loo xamante ne wax dëgg yàlla noonu la lislaamu Sénégal di dundee ñu jàpp ne bu ñu toogee dégg ne am na coow lu am suuf dama defe ne bu fekkee ne dafa am lu nu war a jox waa tànk du ñaari nit ñett ñooy dajale tànk dama bëgg dellu si waa tuuti ci li xew lan la ak lu waral coow li dañu toog xëy dégg ne waa tànk ñi ngi dajaloo fii ci yoof kër Cheikh Mansour Diouf ñu ne Youssou Ndoye mi ngi si jotaay bi jaraaf Youssou Ndoye jaraaf Aldiagne que je respecte très bien ma nga fa waa Ngor am na ñaari jaraaf yu fa jege yu ñëw jaraaf Séni Gueye chef de village yu yoof ma nga fa jaraaf Doudou Mbeng fii bu yoof ma nga fa collectivité lébu nag dafa ami jaraaf am day ji am ndey jàmbur ami saltige ami euh, ndomb tànk yi bëri su amee loo xamante ne nii war naa jóge ci nguur di ñëw ci collectivité lébu dañu ko war a yaatal waxtaanee ko pencoo ko waaye du lu ñuy beru tëju si biir néeg doxal ko nam leen neexee loolu nag moo éclate am ñu ko yëg ñëw opposé wu ci def ay point de presse menaces yi commencé daw dégg nañ ni ko Serigne Issa nettalee muy lu ñaaw lu ñëpp ñaawlu ndax dañu nekk ci état de droit nekk ci réew moo xamante ne nii dafa jaaduwul sax nit di dox di ànd ak i garde corps dafa jaaduwul sax nit di dox di xalaat ne yow fi mu nekk tu ne pas en sécurité Sénégal foofu la toll man je reçois des menaces des menaces de mort te man lan laa def lu dul wax li nga xamante ne moom laa xalaat ci réew mi donc dañ tollu ci réew mi foo xamante ne nii war na ñu toog waxtaane waat réew mi bi loolu amee Issa Diop Thiaw mi ne daf ci daf ko contre ku mel ni man ne daf ko contre président li ñu bëgg mooy nga dajale lébu yi ñu waxtaan te ku waxul loolu président mi ngi koy wax ay fen maa ngi dégg fan yi passé ay Ablaye Matar grand sëriñ euh, ñu ne grand sëriñ de Dakar Ablaye Matar man nee naa reconnaître lu ma grand sëriñ am il n'est pas un grand sëriñ il n'est pas légitime parce que grand sëriñ du faloo sanca ba loolu maa ko wax maa ko waxaat grand sëriñ buñ la falul ndom ba ga nekk kër Ismaïla Gueye ndom ba ga faloon jal ma nga kër Ismaïla Gueye ku ci faluwul doo sëriñ Dakaaru ma dégg ko mu toog fan yee passé ne lébu yi lébu la wax Ablaye Diouf Sarr ak Alioune mais man du ma lébu man xanaa man du ma lébu Abdoulaye Diouf Sarr n'est pas mon candidat Alioune Ndoye qui est mon papaam Ngira Ndoye yar ma dans la collectivité lébu n'est pas mon candidat kon fen na te kilifa war naa moytu di fen di wax loo xamante ne buñ la buñ ko seetee ba ci biir du doon dëgg rawatina réew moo xamante ne réewum renseignement généraux la Macky Sall est le président le plus renseigné du Sénégal da ngay toog di ko fen mu jàkkaarloog yow di la déglu régler li mu soxla si yow bàyyi la nga dem tay la nañ lébu gi ma ci kenn nag ñett fi ne ñii coow nii dañoo bëgg a mos ak ñi ne ci biir di mos ne kenn du leen ko yàqal mooy kalaasu Ablaye Matar gi naan kii mooy sunu candidat kalaasu Pape Diagne Gueye fi génn fële suba naan non ñun président la ñu àndal dama bëgg mu leer man damay tudd ay tur parce que li may wax lu ma maîtriser la te sama collectivité jaral na maa wuy ci brigade de recherche sama collectivité jaral na ma ay nit a fa ne ay ñu ñu dem toog fa wax suñu xalaat dégg nañ fi Ablaye Matar xëy taxaw wax loolu Pape Diagne élection yee passé dégg nañ coow li ñu mu bëre mu génn président la ñu àndal nangam ak nangam xaaruñu ci ñoom loolu li xaar mooy ñu njaboote ñu njaboote collectivité lébu mais soxlawuñu pour ñu ñu nekk fi di wut parti pire fu ñu far mais ici à Yoff Seydina Issa Laye Samb mii nekkoon fii léegi mais yaayam maam Babacar Laye ko jur Seydina Limaamu alayhi salaam ko jur borom rawlu bii ñu ñu ne ci ginnaawam nii moo ko jur mais kooku ko gën a doon lébu waa léegi lan lan lañ koy tànnee digganteem ak Abdoulaye Diouf Sarr qu'est-ce que Abdoulaye Diouf Sarr a fait pour la communauté lébu xam nga man lan laa mujjee maîtriser ci moom mu recevoir ñu mu mii ma sol moom laa soloon mun naa leen jox image yi mu ñu nañu CNL bi conseil des notables lébu bu Rufisque lancement de programme bi ngeen di def dama leen di jox yi garab naa dama leen di jox yi masque dama leen di jox nangam ak nangam ak nangam waa d'accord ñu ne waa d'accord mu yëkkati a million nañu paas leen fii bés bi a fa def nangam dinaa leen indil nag dinaa leen indil lii dinaa leen indil lële ba fii France daan ni xëddeen kooku lu mu la wax di ay ginnaaw dëgg nañ waxante dëgg nag wax dëgg yàlla sëriñ bi kooku nekkul koo xamante ne nii ñun ku ñu war a fiyewu la ci moom wala ñuy déglu ay waxam loolu moo n indi fii may jox ñëpp nag dig daje ci balaa yàgg point de presse boo xamante ne man dama ko woote woon suba lundi bëri na membre presse bi ci yéen ñu ma contacté woon mais Issa Diop mënuñu bokk ndey ak baay mu woote lii man ma war a xëy suba di wax moo tax ma bëmbastal sama kàddu fii Abdou Khadir Gueye dégg naa ko mu am lu mu wax danaa ko ci tontu ndax tey jii bu lébu gi tolloo fii moom am na ci part de responsabilité ñoo fooyee lébu ñoo commercialisé lébu gi moom nañu wax sama mag la sama xarit la ma nga ne taxaw bu ma ko rombee léegi dama koy nuyu su ma rombee daf may nuyu nañu wax fonds yi ko Khalifa Sall daan financé fan la ko dugal nañu wax fonds yi daan jóge union européenne foo ko dugal problème yi am ci lébu gi dafa bëri dañ koo war a waxtaanee maa ngi jox ñëpp dig daje semaine prochaine incha allah résidence Mamour ñu waxtaanee collectivité lébu mu wax ci sama xalaat salaamaaleykum